li boo xam si dina baax la ci Malicounda moo leen yëkkati recasser leen jox leen cent parcelles cent parcelles boole koog six cent parcelles du sept cent juróom-ñett téeméeri parcelles ca diwaanu Louga chambre criminelle ba doon defu atte ci ay faat buñ doon jëf di mu ci doon leeral tey ji mooy nag atteb Amat Fall mit ñi dafa faatoon Mamadou Sow mujjee nañu ko daan ñaatu fukki ati kaso yoo xam dina ko tëdd ak liggéey bu mu sañ ta bañ ay la yëwoon nangu na ni moo ko dóor mu jëlee woon ci ay gaañu gaañu gannaaw bañ ko yóbboo ci hôpital mu ba kanam kii di Omar Kéré la ñuy fekk Louga xew-xew bi mu ngi amee ca jàppo sàppo ci arrondissement bu yang-yang ci fukki fan ak benn ci weeru août ci atum 2019 commerçant bi tudd amadu Sow la Amet Fall ñu koy wax ismu fekk daal di koy dóor jaasi ci bopp bi ba mu ca pare nag ca la daw ca nañu évacuer Amadou Sow ca hôpital Matlaboul Fawzeyni ca Touba waaye ay waxtu rek la ci teg daal di génn àdduna certificat médical bi nag di dëggal gaañu gaañu bu metti bi nga xam ne moo jur génn ko àddunaam ci même semaine bi lañu jàpp ki nga xam ne moo ko dóoroon jaasi ji daal di koy placé nag su mandat de dépôt ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août ci atum 2019 ci kanamu àttekat bi ci tribunal grande instance bu Louga moom Ahmed Fall mi ñuy woowee ismu ne Amadou saw da ko saaga woon daal di koy attaqué ngir bëgg ko gaañ ci bi nga xam ne ñëwoon na ci butigam bi ngir jënd fa cigarette waaye nag mu mel ni lii nga xam ne wax na ko nag jabari Amadou saw da koo weddi moom mi nga xam ne dafa constitué wu partie civile ne xew-xew yi mi ngi amee woon ci seen kër gi nekk yang-yang te butigu jëkkëram ji ma nga fare ca muux muux di xam ne ne li jotale woon jëkkëram ak Ahmed Fall mi ak benn xaritam du lenn lu dul sàcc bu nu sàccoon xari jëkkëram mu daal leen di dénoncé ca gendarmerie bu yang-yang ba ñu jàpp sax xaritam bi daal di koy jugé condamné ko ca Louga ndaw si ne lii moo metti ismu ba mu xamle woon ne dina fayul xaritam bi nga xam ne tëj nañ ko lii moo waral procureur général bi daal di sàkku ci